defee rek mbokk yi gis ngeen ko euh, lii mairie bi la waroon mais gis nga ku ñuy wax Mante Diop de commerçant nekk fii ci marché bi euh, moom moo volontaire jël engagement ci rue bi nga xam ne barki dem rek lañ ko doon def point de presse di ñaxtu euh, moom mu indi ay moyens boppam ngir dimbali yi nga xam ne ñoom la dendal waaye dimbali ñi nga xam ne mooy waa marché bi ndax lii moom lu am solo la dañu saluer la loo xam ne lii vraiment population bi wala waa marché yëpp ñu ngi koy rafetlu ci taxawaayam ndax du maire yorul benn responsabilité wu état mais gis nga ko macha allah jël na initiative am bu am solo di ko defal boppam ñu ma Anta Diop loolu moom moo nekk nii ci bi nga xam ne moo nekk fii incha allah mi ngi noonu yaa jaayfal ñëpp rek gis ngeen gars yi waaw dañuy wax ma Anta Diop waaw moo koy defar gis nga ko li moom lu lu ñëpp saluer la quoi vraiment di geste boo xam ne bi geste acte citoyen la bu ko defee ñëpp war ci jàngat war bàyyi xel ni kenn ku nekk ci war na koo def muy lekk lu ama am solo daal macha allah waaw sunu mbokk commerçant ma Anta Diop gis ngeen ko comme ni ko gars waxee rek moom moo jël initiative bi waaw mu ngi noonu. waaw salaamaaleykum ba tey rek gis nga euh, li ma doon wax rek ci ma Anta Diop ñu jàppoon ne maire bi amoon nit ñi moom bu ñu gisee rek dañuy jàpp ni maire bi ko fi def waaye sunu mbokk taalibe koo xam ne kii ku baax la muy ma Anta Diop commerçant bu mag euh, moom moo ko fi def nii gis nga ko di ko defar maire bi la waroon. ñu taxaw nag sëñ Abdou Ndiaye jëwrin dañ koo xam ne ki day kenn ci manta Diop waaye nekk ci marché bi jëwrin ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu di la ziar maa ngi lay nuyu baax di la ziare bu baax liggéey bi nag ko gisee liggéey bi de moom liggéey bu sell la mm-hmm. ndax li ñuy wax mooy toujours rek dañuy confirmer nii bu ñuy dénkaane war nañoo seet ñi ñuy dénk bu ñuy dénk war nañoo xool kan la ñuy dénk ndax fi ne nii maire bi nga xamante ne ñoom laajoon suñu voix ñu jox leen ko ñu ne ñoom ñuy defar ñoo ñuy defaral marché bi boobu ba tey kenn ku fi ne sa droit yaa ngi koy fay kenn ku ku yor ku suuf bu fi jaaree danañ ko dagg tikki dinañ ko juuti ku fi nekk te yor moto jaar fi dinañ la dagg kon ku ne yor palaat ci marché bi da nga fay waaye lii jëf moom Manta Diop ko fi def te c'est pas la première fois ndax jamono yee ca gannaaw indiwoon na fi oto bi mu ñëw xoos ko yóbbu ko kon tey ji mu ñaareel baa ngi yoonu ñaareel bi nga xamante ni ñun ci li ñu gis mooy def nii ndax su tawee nit ñi dañuy sonn kenn du am foo jaar wax dëgg yàlla ab dëkk na bu ñu ko joxee nii pour mu liggéeyal ñu moo tax waaye enquête xaalis dëkk rek te defoo dara loolu jaaduwul loolu daal mooy li nga xamante ni manqué moom ñoo ngi koy yàlla suñu borom ful alalam te ko ndax lii jëf rafet la ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal tawfiq ndax ki naay kenn ku ci ne di yoon saa yi am soxla war a ñëw ci ñu ah du ñu am fu ñu yaar kon moom lii lii mu def liggéeyu maire la woon waaye waaye moom moo koy def ci ci ci volonté boppam kon ñoo ngi koy sant baax ko mooy sëñ Abdou Ndiaye doon kenn koo xam ne kii ci marché bi di kilifa moo doon wax kàddu yooyu rek ñuy remercier Maanta Diop bu baax ci taxawaayam waaye buñ ko gisee rek ñu xam ne maire bi defu ko fi ku ñuy wax Maanta Diop di commerçant bu mag nekk ci marché bi moom moo jël volontaire def ko fi kon loolu ñu ngi koy jaajëfal ci turu délégué ci turu waa marché yëpp leen jox daje incha allah ci beneen jataay jërë ngeen jëf.